bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahuma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Rewmi FM 97.5 delswaat nañu ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ci waxtaanu suba su fi jaar ñi ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana mbokk yi xam ngeen doomu aadama saa su dafa war a wéttali ko jëmmam ca la nga xamante ne mooy la tax yàlla bind ko ba na boroom xam-xam ju mag di xasanul basri rahimahullah moo ngi ni di laaye biir xeet bi nañu ibnu aadam innama anta ayyaamun kullama dahaba yowmun dahaba baaduk nee na yow doomu aadama bi xamal ne de dund bi ngay dund ni ay fan lañu ay bés lañu waaye na xam ne bépp bés ba ñëw jàll lenn ci sa dund bi wàññeeku na lenn ci sa dundu dem na ba tax na bés yooyu ngay dundu yow doomu aadama bés yooyu ngay dund yow jullit bi ngelawaay fexeel rafetalal bés yooyu ñuy ñëw ci dundu bi ngay dundu ñuy jaar di jàll di dem te dootuñu ñëwaat te bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ni bés boobu dootul ñëwaat kon lala ci war mooy nga rafetal bés boobu ba tax na mu ne la kullama zahaba yawman zahaba baado bépp bés ba ñëw jaar jàll bu demee am na la dem ci sa dund am na la wàññeeku ci sa dund ba tax na tey ñu fas yéene ànd ak yéen leen la nga xamante ne mooy yërmande bañ doon waxtaanak ak waaye buntu bi nag dañu war a jëmale yërmande jooju ci suñu ñaari wayjur yërmande ba doom di am ci ñaari wayjuram la ci borom bi tabaraka wa taala baaxee yonent bi ci suñu téere bu mag bi di alquraanul karim ci suratul isra borom bi tabaraka wa taala daa jël jaamu bañ ñu sant ne nañ ka ka jaamu lënkale ko ak topp ñaari wuyjur ba tax na borom bi tabaraka wa taala moo ñu baaxee ne wa qadaa rabbuka an laa tacbuduu illaa iyaahu wa bilwaalidayni ixsaanan borom bi tabaraka wa taala moo ñu ne suñu yonent bi sallallahu alayhi wa ci téere bu mag bi ñu yore fii ci suñu diine islaam ñu di ko jàng yàlla buur bi tabaraka wa taala moo ñu ne ci téere boobu man yàlla maa dogal ne allah taabudu bu jaamu kenn bu leen jaamu leen illaa iyaah lu moom yàlla man maa dogal ci yéen sama mbindaafoo ni sama jaami ne bu jaamu jant bi nangeen ma jaamu man yàlla man yàlla maa dogal ci sama jaam ne bu ñu jaamu weer wi na ma jaamu man yàlla man yàlla bi léegi maa dogal ci sama jaam ne bu ñu jaamu safara nañ ma jaamu man yàlla man yàlla maa dogal ci sama jaam neleen buleen jaamu biddéw yi na ngeen ma jaamu man yàlla waaye man yàlla bi léegi maa dogal ci sama jaami ne kenn ku nekk ci ñoom bu mu jaamu moroomu jaamam nañ ma jaamu man yàlla moo tax borom bi ne wa qadaa rabbuka sa borom de moo dogal ci coobareem ci nammeelam ak ci bëgg-bëggam ne an laa bu leen jaamu leen bu leen fi jaamu dara illaa iyaah la moom yàlla bu leen jaamu lenn lu dul yàlla bu leen jaamu dara ku dul yàlla kon na ngeen jaamu yàlla kott képp rekk dong borom bi daldi ñu ci toftal ne ginnaaw bi ngeen ma jaamoo wa bil waalidayni ihsaanan wa bil waalidayni na ngeen rafetal jëmmale ko ci ñaari wayjur yi moo tax mu ne ñu wa bil waalidayn ñaari wayjur yi nag nang leen jëmale ci ñoom ñaar ixsaanan di rafetal bu ngeen demee bay rafetal na ngeen ko rafetal ci ñoom ñaar bu ngeen demee bay jekkal na ngeen jekkal seeni nekkin seen comportement ci ñoom ñaar bu ngeen demee bay rafetal nangeen rafetal jëmale ko ci ñoom ñaar moo tax borom bi ne wabil ne ci ñaari wayjur yi ah ihsaanan na ngeen rafetal jëmale ci ñoom ñaar ba tax na rafetal jooju noonu nag borom bi tabaraka wa taala bàyyewu ko savant ñu duñu ko wax borom bi tabaraka wa taala ko philosophie ñu duñu ko wax waaye bàyyiwu ko intellectuel yi ngir ñu di ñu ko wax borom bi subhaanahu wa taala ma bëgg ñu rafetal jëmale ko ci suñuy ñaari wayjur yi di wayjur bu góor di pàpp waaye di wayjur bu jigéen di yaay ñi nga xamante ne ñoo composé ci ñoom ñaar nga jaar yàlla andi ci kaw suuf rafetal bala yàlla wax ne na nga rafetal jëmale ko ci ñoom ñaar bu dee dalaa bàyyeeg sa xel ak sa xalaat doo ko man doo ko xam ba di ko def waaye moom borom bi tabaraka wa moo la ne rafetal ba ngay jëmale ci ñaari waajur moo la ko tegtal te moo la ko joxoñal te moo la ne nii nga ko mën a defee ba tax na noonu borom bi tabaaraka wa taala bëggee ngir nga rafetal jëmale ko ci ñaari waajur yi bu fekkente ne dala bàyyi sa sago ngir nga mën koo découvrir doo xam naka la bu dee bàyyi na nag sa sago nga mën koo jàng ci leneen lu dul ci fim la ne foofu nga koy fekk doo ko mun a waaye ci mbaaxam ci ñëwentam ci bëgg ba mu bëgg doomu aadama bi ndegem moo ne la ne maa dogal ci yow mi sama jaam ne la bul jaamu dara bul jaamu kenn bul jaamu lenn kudut man yàlla noonu nga koy jaamu mu yónni la ndaw di yónnanti kooku ñëw di la jàngal nanga kay jaamoo na ngay jaamoo sa borom mu jox yónnanti boobu téere bi di alquraanul karim ndegem yàlla boobu moo ne wa bil waalidayni ihsaanan na nga rafetal jëmale ko ci say ñaari waajur bi léegi mu daal di la dëxiñal ci alquraan jooju nan ngay rafetale jëmale ko ci say ñaari waajur mel ni nit ñi dañoo am question bu ñu bëgg poser yàlla ne ko waaw suñu borom ana nu ñuy rafetalee jëmale ko suñuy ñaari waajur mel ni ñëpp am inquiétude boobu mel nii ñëpp am question boobu bëgg koo laaj yàlla boroom mi nga xamante ne moo xam la ci xolu doomu aadama yi mu daldi ñu laaye biir daal di ñu yenkeewal daal di ñu won wax ñu nañuy rafetale jëmale ko ci ñaari waajur yooyu ne nañu rafetal jëmale ko ci ñoom ñaar moo tax mu ne wax wa qadaa ko sa borom de moo dogal ne allaa taabudu ngir ngeen bañ a jaamu dara illaa iya kudut moom yàlla bu leen jaamu lenn kudut moom bu leen jaamu dara kudut moom waaye nag wabil waalidayni ihsaanan na ngeen rafetal jëmmali ko ci ñaari wayjur yi mbokk yi yenn jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot gis ngeen la yàlla lënkale jaamu ko moom kott dong rek ak rafetal ba ñuy jëmale ci ñaari waajur yàlla ne maa dogal ci yéen samay jaami nangeen ma jaamu man rekk bu leen jaamu leneen ku dut man waaye mu jël gannaaw bu mu joxe ndigle bi mu daldi ci lënkale ne na rafetal jëmmale ko ci seen ñaari waajur yi di papa ak yaay daldi ñu won ni ñuy rafetale jëmale ko ci ñaari wéyjur yooyu ndax nee nañ leen bu ñu bàyyee woon ak suñu sago ni konte woon kenn du xam na ngay rafetalee jëmale ko ci ñaari wéyjur yi waaye nañu borom bi yaatale nam ñu xamloo nam ñu won ni ñuy rafetalee jëmale ko ci ñaari wuy moo tax aaya bi daldi di continuer borom bi ne imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma mu wone donte ñoom ñaar walla kenn ci ñoom ñaar mag dikkal na ko aw kilaaxuma walla dañoo màgg tàndoor moo xam kenn ki ci ñoom ñaar bu dee màggat dikkal na ko nanga nga gën a farlu rafetal jëmale ko ci ñoom ñaar bu dee ku góor ki moo njëkk a ku jigéen ki na nga takk sa ndigg gën a taraxlaayu taxawee ku màggat ki dikki lu ëpp noo ko taxawee woon ndax kooku foofu la ko soxlaa moo tax mu ne imma yablughanna indakal kibar moo ne moo xam donte kenn ci ñoom ñaar njëkk naa màgget keneen ki li la war yow doom mooy nanga rafetal jëmmale ko ci ñoom ñaar aw kilaahuma walla moo xam ñoom ñaar dañoo soobandoor dugandoor ci néegu màggat mbokk yi fii buñ fi taxawee tuuti dinañu gis ne suñu diine bi diine yërmande la diine bu yàlla organiser la bokkut ak yeneen diine yi ndax gis nañ fi diine joo xamante ne ñaari wayjur yi bu ñu màggatee am na fañ leen di yóbbu ñu tàqale ko ak ñoom ñu sorel leen seeni palaas ñu sorel leen seeni jëmm waaye ñun suñu diine islaam santuñu loolu borom bi tabaraka wa mala dënk ñaari wayjur yooyu ci jamono ju yàgg ba nga nekkeen tànk nga gën ci àddina ñokk yow ñokk yow ñokk yow ba tey nga féete leen palaas joo xamante ne ñoom fa la toll woon ba nga doon gane ci àdduna ñoom ñu féete palaas joo xamante ne ba nga doon gane ci àddina fa nga nekkoon nanga nga toll woon ci niw kàttan ci niw doole ci ñakk xam ci ñàkk man ñoom tey jii yàlla dogal na fa la ñu féete kon waroo leen beddi waroo leen ignorer waloo leen yóbbu foo xamante ne at bi at nga leen di gis wala at bi at nga leen di fekk foofu ñun suñu diine islaam du boobu diine ñun suñu diini islaam yàlla dafa dogal ne say ñaari waajur yi bu ñu tolloo tolluwaay bi ni mel càngaleen di gën a taxawee moo tax aaya bi ne imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma moo xam ñoom ñaar kenn ci ñoom ñaar bu fekkee ne màgget dikkal na ko taxawee ko amal ci moom yërmande amal ci moom cofeel umbal ko yërmande umbal ko cofeel na nga ñewente ci moom ba tax na borom bi daal di continuer aaya bi ne jamono jooju de léeg-léeg nga gis ku naqaree dëkkal ak waajuram léeg-léeg nga gis ku compliqué nekkal ak waajuram borom bi di la avertir ne la waxuma la leneen waaye bu leen wax uf bu leen wax ah bu leen ciipatu bu leen ne màgget yi dañoo soof bu leen ne ñii dañoo bari wax ndax jikko jooju yëpp yàlla da leen koy mooñaale waxtu jooju mu di la teste yow doomu aadama bi mu di la teste yow doom bi yow mi yàlla dénk ñaari màgget yooyu mu roof leen jikko ju dañuy bëgg di waxtaan foofu bu leen ne ñi dañoo bari wax dañuy naax seen nekkin day xaw a gëlla góose bu leen ko xoolee ba di ko tudd bul toog naan dañoo compliqué bul toog naan dañoo soof bul toog naan ñii dañoo naxaree dëkkal moo boo xalaatee jamono bi nga gën see àddina sa sa situation moo gën a critique ñoom tey jii ni ñu waaye musuñu laa beddi musuñu laa janni musuñoo wax ci sa jëmm ji loo xamante ne boo ko déggoon dina la doon naqari musuñu koo wax au contraire loo def neex na leen noo mel neex na leen yow la ñuy ndamoo yow la ñuy sagoo yow la ñuy tiitaroo waaye ana lu tee nga mel ci ñoom kom nañu meloon ci yow jamono bi nga nekkoon liir jamono bi nga gënisee àddina parents yi yow la ñuy ndamoo yow lañuy ñuy safoo yow lañuy ñuy bëggee yow la ñuy tiitaroo ànd ak bi nga nekk yëpp li génn ci sa gémmiñ ñoo netti waaye raxas ba mu set lu génn ci biir bi jaaree ci suuf ñu netti raxas ba mu set boole ko xeetu parfum yañ lay defal moo ne lu tee bu ñu tolloo foofu nga nekkoon ba nga ganisee àddina tey yàlla dogal ñoom ñu nekk palaas boobu lu tee nga taxawee leen lamel ni nañ la daan taxawee moo tax yàlla ne fala taqul lahuma uffin bu leen wax ah bu leen ciipatu bu leen xoolee botu doyadal wala tanharuhuma bu leen leen di merloo lépp luy yëkkati seen xol bu ko wax lépp luy yëkkati seen xol bu ko jif bu leen xool botu xeebaate bu leen xool botu sonn ci yenn bu leen xool botu yéen a ma bu leen xool buti yi bu leen xool butu xeebaate moo tax yàlla ne kàddu ba tollu ni uf bu leen ko wax ñoom ñaar rawatina la weesu kàddu ki wala tanharuhuma la la ci tegal mooy ne bu leen leen merloo du jëf du kàddu du geste dawal leen safak marwa dawal leen guddig bëccëg feccel leen ci kaw doj ba say tànk di nàcc jar na ko wala tan xaruhuma kon fii yàlla bu la ne falaa taqul lahuma uffin bu leen wax wax ju toll ni ah, kon dee leen wax wax ju neex noonu ngay déggee aaya bi kon fii bu la yàlla ne wala tanxaruhuma bu leen leen naqaral kon day roof bànneex seeni biir xol dee leen di nuyu comme nekk gaay di waxee nuyu murit waaw donte soxlawuñu ko sax waaye ñëwal ne ko góor gi tey de maa la jox cinquante mille bi waaw demal ci maire bi ne ko ah tey de maa la jox cinquante mille bi waaw kañ nga dugal bànneex seen biir xol waaw wala nga xool leen di neex waaw ah, nga di leen ko defal laaj leen la leen di neex tey lu tey nga tàbbil leen seeni si sa waruwaay raxas oto bi ba mu set dugg leen ci biir ngeen di dem defi promenade doxantu boole ko joie bu toll nii danga leen di wanne man yéen laa am nga di leen ko wonti ci di leen ko wax ci kàddu waaw lala yàlla tere bu leen ko wax nga déggee ne la leen di neex nga leen di wax la la yàlla tere ne bu ko dugal seeni xol di naxar kon dugal fa ba neex waaw waqul lahuma qawlan kariman la la yàlla wax dee leen di wax wax ju teey wax ju neex wax joo xamante wóor na ne ku la ko wax wóor na la ne boo tolloo fa sa ñaari waajur yi tollu tey sa doom bu la ko waxee dina la neex delu wax kàddu ji ni mel ci say ñaari waajur bu fekkente ne wóor na la ne sama ñaari waajur yi fu ñu toll nii ba ma tolloo sama doom tollu fa ma tollu nii wóor na ne la may neex dong lay bëgg sama doom di ma ko wax kon na nga génnee kàddu jooju sa gémmiñ nga di ko wax sa ñaari waajur wóor na la ne jamono bu sa ñaari waajur yu tolloo màggat bu dee yaa ci tollu la ngay mébét sa doom tollu ni fa nga tollu tey la ngay mébét mooy sa doom mu bañ laa wax li lay naqaril mu bañ laa tàbbil lay naqaril sa xol loolu doo ko bëgg kon bu ko jëmmali say ñaari waajur la ngay bëgg ñu wax la ko wax loolu say ñaari waajur la nga bañ say doom wax la ko dee ko bañ a wax say ñaari waajur yi ba tax na suñu diini bi di diine islaam moom gisut ne ñaari waajur yi bu ñu màggate dañ leen di war yóbbu ci kër ba ñuy yóbbu màgget yi déedéet ñun suñu diine gisut loolu suñu diine lam ñu sant mooy aaya bi yàlla moo dogal si yow jaam nela ne la bul jaamu dara bul jaamu lenn kudut man waaye nanga nga rafetal jëmmale ko ci say ñaari waajur moo xam kenn si ñoom ñaar dañoo màgget walla ñoom ñaar dañoo màggetandoor yàlla ne bu leen wax uffin baat bu gën a gàtt di ah yàlla ne bu ko wax sa ñaari waajur mu tere la ne tamit wala tanharuhuma bu leen leen naqaral ci xoolin bu leen leen naqaral ci wax bu leen leen naqaral ci geste ci comportement bu ko def waaye yàlla lan lay def mooy borom bi ne la waqul lahuma nang leen wax ñoom ñaar xawlan baat yi nga xamante ne kariman baat yu tedd la waaw góor gi tey loo bëgg a lekk góor gi tey loo bëgg a añee góor gi tey lan nga bëgg a reereel góor gi tey ah voilà maa bëggoon ñu waxtaan yéen seen jamono béréb sangam na ngeen fa doon demee masalan na ngeen doon demee école na ngeen doon demee daara nangeen doon jàng ci daara yi seen jamono naka la nit ñi doon solo waaw naka la góor yàlla yi doon solo mu daal di la ko wax yéen seen jamono na ngeen doon bind téeri maam yàlla na ngeen doon bind alquran na doon topp farata yi yàlla yi ila axiri xeetu waxtaan yooyu la góor gi soxla moomaa jooju la xelam jàpp mu di la ko wax nga di si jëlee aluwa di si jëlee bind su ko defee noonu ngay dem ci meer bi di ko laaj yéen seen jamono na doon solo ba xam méngoo ak suñuy jamono yi tey na xale yu jigéen yi di solo maire bi di la rencontré seen jamono nañ doon solo seen colin nam doon jot nam doon jotee seen melokaan nañ nañ amoon kersa di daje góor nga comparé ko ak suñuy jamono yi tey xale yu góor yi ni ñuy am fit bu toll ni ñuy jaxasoo xale yu jigéen ñi wala xale yu jigéen ñi ni ñuy amee fit di jaxasoo xale yu góor ñi nga comparé ñaar ñi maire bi lépp lu nga xamante ne mën na kaa fàttaliku seeni jamono mu baaxee la ko nga comparer ko ak suñuy jamonoy tey bu dee góor gi la moom it lépp loo xamante ne mën na kaa fàttaliku seeni jamono mu daldi la ko baaxee su ko defee nga gànnaayoo ko xool comparer ko par rapport ak suñuy jamonoy tey ji lii mooy bu leen leen naqaral waaye na nga waxtaan ñoom waxtaan bi nga xamante ne mooy waxtaan bu tey mooy waxtaan bu dagan mooy waxtaan bi nga xamante ne di nga ci jëlee la nga xamante ne mooy njëriñ mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a jëkkati jotaay bi ña war a joxe xibaar ci tubaab ñu ngi ni taxaw ñu jébbal leen bërëb bi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa la aaya bi di tekki yal nañu ko yàlla wërsëgal ñu mën kaa dund la aaya bi di tekki diggante wéyjur ak doom yal nañu ko yàlla déggaloo ja'alana allahu wa iyaakum min allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana amin ya rabbal alamin Rewmi FM lii lañ leen andiloon tey ngir ñu fas yéene ko wéttalanteeg yéen ñu ñaan yàlla suñu boroom lépp lu jub ci kàddu gi yan na ko yàlla nangu lépp lu ci jumte yan nañu ko yàlla jéggal baarakallahu li walakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayaati wa zikri alhakim aminna fi awtaanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina allahumma ihfaz bilaadana min ma dahara minha ma batan aqulu ma tasma'un wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. wa barakaatuhu. wa barakaatuhu. wa barakaatuhu.